Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko gi ci tànn gi Sud FM seen rajo Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan juróomi waxtu moo jot ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar euh, li ciy gën a fës ci rek bokk kii di Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf daal leen déglu euh, ci fond dossier bi jàkkaloo nañ cek doyen des juges fi ak alxemes gi nag sàkkuteefu bàyyi négandiko gi ak jàpp nañ ne dina daal dinañ ci daal di jukki ci ndorteelu xibaar yi eh, lay eh, doon dinañu wax itam ci ubbite eh, usine pharmaceutique Médis Sénégal njiit réew mi joxoon ak digal ngir ñu daal di koy dooraat liggéeykat yi nag joxe nañu app app ministre bi ñu denk santé ak finance ne ñu daal bu ñu jëmmale lu ni mel dinañuy tàmbale nag amal seen yëngu-yëngal ndax xaar bi ñu ngi cay tàmbale nag tay ci ndor ci biir xibaar yi dinañ ciy jukki ak ndaje bañ ci amal bésuk tey jile ci boobu jamono coordination nationale bi taxaw ne ñu daal système bu yees la ñu daal di nag bëgg seen acte intégration yi ñu daal di koy nag euh, dugal ba tax ñu daal di ci wootepp amalab ndaje ñoom itam euh, kuréel gi daal ne ñu acte yeeg ñu daal di koy génnee nu mu gën a rek gaawee euh, juróom benn weer yee fi ngi ni yëf yi daal di tàggatembe dinañ leen rek teewlu ñetti junni ci ay nouveau bachelier ñuy soog di am seen bac kenn orienté wu leen ji wax nañ leen ne nag faculté yi nekk ca université ñoo daal di nag fees del collectif bi addu climat social climat sociopolitique bi eh, dinañ ci jukki ponk wax sa xalaat ngeen man cee rek addu ña ñu daal di nag téye ba léegi ci loxoy buur waaye itam eh, ñu ci bëri di def conférence de presse tontontu bi ak kàddu yi tar yu ñuy daal di nag eh, weccante naka ngeen ko jàngatee ndax dina mën a tax dal gi ñu woote daal di am seen xalaat ci njeextalal xabaar yi ñu ngi ko ci sàkku wàllu mbas mi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar nit ñu daal di amee feebar bi diggante démb ñu koy defee saa su ne ci wax sa xalaat bi ak li mu ñu daal di nag vacciné wu euh, beneen ponk la ci daal di nag doon bés bi ñu jagleel nag wàllu ndox mi àdduna wërngal këpp lu war a toll ci ñaari milliards ci ay nit daanaka nag ndox mu sell ma ñuy naan ngir jëfandiku gi euh, daanaka euh, amuñu ko ndox nag nekk mbir moo xam ne mën na saxal jàmm indi sécurité bataaxal bi nga xam ne nag njiitu réew mi daal dina koy rek fësal dinañ ci daal di nag àddu ba ci ci jota nag ni mu daal di tëddee mbirum ndox mi mën ngeen bu mujj bi ci wax sa xalaat ci kanam tuuti toftal ci yeneen xibaar laataa ñu ubbi antenne bi Papa Abdoulaye Dieye moo fare ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay doon. Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag euh, doore ak activiste bii di Guy Marius Sagna Clédor Sène kii di Assane Diouf euh, déglu nañu leen nag ci dossier bañ leen daal di nag tuumaal doyen des juges jàkkaarloo nag ak ñoom tey jii ci altine ji ñoom nag toppee nañ leen association malfaiteur booloo rek def naka sadul noonu waaye daal di woote ab mouvement insurrectionnel bi nga xam ne nag amu ci amuñu ci sañ-sañ seen avocat nag nee na dugal nañu ab sàkkuteefu liberté provisoire bàyyi néegandiko dogal boobu. boobu nag moom maître Moussa Sarr nee na daal jàpp nañ ne fii gën caa yéex bésub altine dogal bi dina daal di nag jub euh, yokk na ci ne itam am nañu yaakaar bu baax a baax ne kiliyaanam dina daal di nag am euh, lii di liberté provisoire euh, boobule dikk ci ubbiwaat usine boobu usine pharmacie boobu di Médis Sénégal SA liggéeykat ya fa nekkee nag tey jii amal nañu ab ndaje ngir daal di joxe ab app ministre bi ñu dénk wàllu santé ak finance ñu daal di jëmmal loolee nga xam ni jiitu réew mi daal dina koy rek sàkku ñu ngay menacé ne nag dinañ wàcc nag ci mbedd bi amal toogaanu euh, ñaxtu euh, xamle nañu ko ci seen conférence de presse bi ñu amal tey ji euh, ci siège bu fédération nationale liggéeykat yu Sénégal di CNTS liggéeykat yi nag ñu ngay woy di laaj lañ leen amal ci ay weeru payoor Abdoulaye Diop. liggéeykatu usine garab bi di Medi Sénégal bëggatuñu autorité yi di leen jox ay calmant ngir mën a dooraat liggéey yu usine boobee loolee fixe. cinq jours lañ leen may dès la semaine prochaine dinañ ñu dégg sur le terrain parce que xam nañ ne kilifa gi nga xam si mooy joxe ndogal joxe na ndogal te ñun dinañu exécuter ndogal bi mu ñoom mënuñu koy exécuter ñun dinañ koy exécuter. jëriñ ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ak finance daal di xaatim convention yu ñu signé woon ba noppi loolee rek la ñuy daal di sàkku Lamine Fall mooy secrétaire adjoint bu CNTS. protocole yi nga xam ne bi signé mu ministre de la santé ministre des finances kon li ñu bëgg tey appel bi ñuy lancé mooy opinion bi xam ne réew mi su tardé te Diop usine bi nag ay gàllankoor yu bëri la indi suñu sukkandikoo ci délégué personnel bi di Medoune Diop. liggéeykat yi toog nañu fukki weer ak ñeenti yoo xamante ni ñu amuñu li di couverture médicale tax rek ñoom ak seeni njaboot ci dugg ci ñàkk jaaxle ak nakar boo xoolee bépp garab bu Medi Sénégal doon defar tamu loon rek saafara ñi nga xamante dañoo néew doole fii ci Sénégal dañoo ñàkk ci pharmacie yi ak établissement sanitaire yi. usine pharmaceutique bi di Medis Sénégal nag mi ngi dakkaloon ay yëngu-yëngoom fukki fan ak juróom ci weeru janvier atum 2020 ndax lii di ñàkkum koppar. Euh, beneen kuréel bi ñaxtu itam mooy coordination nationale bi ëmb euh, jàngalekat yi ñoom nag taxaw nañu temm ngir euh, seeni système bi njàng mi di doxee ñu dal di indi ay joyante yi ndax acte intégration yi ak arrêté admission yi la ñuy wax ne ata ngi nii yënguwul ba tax membre ya ca fare jàpp ne yooyu bu politique maanaam ñu jàll ci eh, leneen kuréel gi sàkku nag ñu daal di xaatim eh, xaatim yi war ngir rek eh, mbir moomu mën a am avancement ndax juróom benn weer yëf yaa ngi nag tagga tembe ñaawlu nañu itam tekk tekkaaralu syndicat bi nga xam ne mooy G7 ñu jàpp ne daf ci daal di lëkkaloo ak nguur gi Pape Boubacar Kama nekk coordonnateur national jàngalekat yi ñuy teewlu ko ak Ismaïla Marcel Kouli ñu am mbetteel lool gis que ne am na lu weesu at benn acte d' publique signé wu ko depuis plus euh, euh, at mi ñu gisaat aussi que ne euh, au niveau de li nga xamante ne moom la ñuy tudde diplôme certificat d'aptitude pédagogique aussi te nga xamante ne le ministre de l'éducation Mamadou Talla moo ko war a signé gis nañ ne toll na ci at signéetul arrêté yooyu nga xamante ne ñoo war a génn ci dex ci ko pour que enseignants yi nga xamante ne ñoo am diplôme bi mën a disposer de kayit boobu mën ko déposer pour intégrer la fonction publique dafa am ay yoo ñoo xamante ne dañuy déposer seen euh, dossier au niveau de la fonction publique war a ñu bàyyi seen dossier mu am erreur boo xamante ne dañu koy rejeter ñu toog lu toll ti ay at wala at wala ñaari at kenn du xam ndax rejeter nañ dossier bi ba par la suite la ñuy doog a xam ne dañu ko rejeter ñu ne loolu dafa war a dakk moo tax ñuy demander au gouvernement ministre yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo ŋànk li nga xamante ne moom mooy fonction publique ak wàllu njàngale mi ak mi ñu signé li nga xamante ne moom moo nekk euh, ci bureau ministre bi ndax gis nañ ne ay junniy junniy acte ñoo nekk foofu te mi ngi toog lu toll ni at wala boog lu ko ëpp te signéetul benn acte boo xamante ne jàngalekat yi la concerné ñu leen di demander aussi par le ministre de l' éducation ki de ki nga xamante ne moom mooy Modou Talla mu signé aussi arrêté d' admission au certificat d' aptitude pédagogique yi nga xamante ne ñu ngi à la depuis plus d' di fa nelaw ñu leen di laaj aussi plateforme bi nga xamante ne sa état du Sénégal def cee def ay milliards mu tuddoon girafe te ñu inauguré ko woon en 2007 ñu jëmmal ko te fan la toll di xool projet am la toll ci bi di ñaax aussi ñuy def ay guichet unique yoo nga xamante ne ñu ngi ko signé woon ak jàngalekat yi pour que ñu koy ibbi au niveau de la fonction publique ñu koy ibbiwaat par la même occasion aussi ñuy wax waa G7 naka la ñu mën a toogee dur bii yépp bu yàgg bii ba ay syndicats yoo xam ne amuñu bar wax ak état bi directement ci rencontre périodique yi état bi di di di organiser ñu toog ba ñooñu di jóg di dem à la fonction publique di leen rencontrer ñu doog a jóg di wax ñu leen di wax ne loolu que na parce que nag il faut que syndicalisme politicien boobu ñu bàyyi ko ci système bi pour nit ñi mën a respecter jàngalekat yi Euh, ñetti junni ci ñu soog a am seeni nag euh, baccalauréat ñu ngi xaar ba léegi ñu dugal leen ci université yi euh, ñu xaatimal leen ab kayit ngir rek yëgal leen ne faculté yi nekk ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru moo daal di nag fees dell collectif bi nga xam ne nag ca la ñu daal di nag daje di ñaawlu situation bi ni mel joxe nañ sax ab ab état bi ngir mu daal leen nag wutal fa mu leen di nag dugal nouveau bachelier yooyu nag menacé na nag bu ñu leen taxamloo dinañ wàcc ci mbedd mi Souleymane Diouf mooy seen coordonnateur déglu ko Ismaïla Marcel Coly mu nekk loo xam ne dafa yéeme trop parce que boo xoolee daaw ñu doon réclamer les 1340 bacheliers non honorantés ñëwaat année bi ñu gis euh, li ko gën a pire mooy 6854 bacheliers yoo xam ne amul kenn ku leen daal jamono yi ni te pourtant le ministre euh, Cheikh Oumar Anne waxoon na naa fa passé ne orienté bu taxee wax loolu tamit euh, ñun tamit il va falloir ñu def benn réplique parce que ab ndaw bu jàngee bakkam tamit li nga xam tamit mooy yoon mooy nga nga orienté ko fii rek laa gisee ab étudiant buy taxaw di réclamer ab jàngam donc euh, moom tamit xam nga daf ñu ëpp doole parce que li ñuy wax nii lu leer nañ la dañu dem te plateforme filtre nombre bi ñu suturé ko bi mooy na fexe xoolaat seen demande dérogation dem nañ ministère bind ay demande dérogation waaye bu fekkee tamit moom dafa lànk bañ a orienté xale yi nii bu neexee suñu borom danañ organiser wu wàcc terrain nangu li nga xam ne moo nekk euh, parce que droit la comme ñëpp ñu jot seen orientation ak xam ne da leen di parce que doom dañoo wax ne université bi dañoo fees mu nekk loo xam ne des ab solo ci ñoom te alors que ñoom ñëpp fay nañ seen seen vingt cinq mille ñu jox leen représentation mais jusqu'à maintenant ñoom mënuñoo accès jàng parce que maanaam école yëpp a fees jamono buy nekk léegi nag Sénégal fii rek laa gisee Abdou Diaw taxaw di réclamer orientation mu nekk loo xam ne dafa ñaaw trop waaye li may lancé aussi encore on pour maanaam mu mën ciy wax parce que ñun combat bi dañ ciy weet comme euh, collectif bi dañ weet bu baax te alors que lu ñuy wax ni lu leer nañu la Cheikh Malang mënu koo wuti xanaa kese mu dem ci médias yi di wax mais ñun tamit def ko réplique waaye li ma bëgg mooy balaa kii avant qu'il soit tard mu fexe xoolal seen dossier su ko defee moo leen orienté au plus possible. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. Adama Ndione. Euh, situation bés bi ci feebaru mbas mi la ñuy daal di nag àddu juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ci ay cas wàllante yu bees lañu ñu daal di nemmeeku euh, ministre santé ak euh, action sociale li mel la daal di nag yëgle ci ci junni ak juróom-ñetti ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett test yi ñu daal di nag def am na nag ñetti nit ñu ciy daal di nag faatu ba ñu sukkandikoo ci autorité sanitaire yi diggante démb ak.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 xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak ñett yu tëddee nii ci gox yi ñett ci Parcelles Assainies ak Rufisque ñaar ci maris Grand Dakar ak Guédiawaye benn ci Dakar Plateau Médina Amitié 3 ñaari Tali Liberté 6 Ouakam Mermoz Ouest Foire Nord Foire Sicap Foire Yoff HLM HLM Grand Yoff Cité Soprim Sébikotane Diamniadio Cité Fadia Kër Massar Jaxaay Thiaroye Azur Sangalkam ak Arafat ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak ñeent yu tëddee ni juróom ci Thiès ñeent ci Kolda ñett ci Richard tool ñaar ci Saint-Louis ak Touba benn ci Louga Pout Mbour Passy Tambacounda Tivaouane Vélingara ak Ziguinchor ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi malaat si ñi entré woon ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fanweer ak ñetti malaat ñoo nekk réanimation ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñeent ak juróom ak juróom téeméer ak juróom fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak fukk ak benn ci loxo docteur yi wala malaat ñu nekk ci hôpital yi ñu daal di nag desandi ak wàllu euh, vaccination yi wàllu ñàkku gi kon fukk ak juróomi junni yu tegal euh, wala téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti yu tegal téeméer ak benn fukk ak juróom-ñett ci nit ñoo daal nag ñàkku ba campagne bi doore ak léegi vaccination boobu nag ci Sénégal bi yëpp la ñuy def xayma boobu euh, Kaolack nee ñu ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay nit ñoo daal di nag vacciné wu nee ñu juróom-ñaari téeméeri nit ña daanaka sérum AstraZeneca la ñu daal di jëfandikoo journée mondiale bi ñu jëkle nag wàllu ndox àdduna wërngal këpp kon tey jii ci altine ji la lu war a toll nag ci eh, ñaari milliards ci ay nit nee ñu daal jotuñu ci ndox mu seet ma ñuy daal di jëfandikoo ci àdduna bi Sénégal nag kuréel gi nga xam ne bëgg na eh, ndox mi daal di matale eh, fépp foo man di nag dem di ndox mu sell mi nee ñu daal matalewul ay objectif am ndax nag am na wàññeeku bu war a toll ci juróom fukk ak ñett jël ci téeméer nga xam ne ndox moomu daanaka euh, jotaguñu ca euh, ndox nekk source de paix maanaam luy mën a rek suuxat euh, jàmm waa itam kaaraange di sécurité xaw ma téere bi nga xam ne nag njiitu réew mi moo ko daal di xaatim préface ba mu nekk rek sargal ndox bi ñu jagleen nag wàllu njàng ak njàngale mi élèves yi rawatina waaye nag milieu scolaire bi des koo xam lool ba tax na nag ki xaatim téere bi di ko ñaawlu ingénieur ci wàllu eaux et forêt colonel Moumar Gueye di woo nag ci wàllu livre boobu ñu daal di sàmmonteeg jëfandiku gu euh, am solo ci wàllu nag ndox ak njëriñ mu mu mën rek am ci askan wi mu ngay daal di nag fàttali ni ci àdduna bi ñaari milliards ci ay nit daanaka ndox moomu euh, jafe na leen ñu teewlu leeralu colonel Momar Gueye ci jokkoom ak Mame Diarra Da Silva. bi nga xamee ni itam bind naa ko dama ci waxtaan ak euh, waa ministère de l'éducation maanaam jàngalekat yi. bi ma leen ko joxee yónnee ko ministère de l'éducation ñoom ci seen bopp ñoo seede ni téere bi la téere bu baax la ci ay jàng jàngkat ñi nga xam ni ñooy ñooy ndongo yi baax na ci jàngalekat yi te lépp loo xam ni war nañ ko xam ci wàllu jàngale ci ndox ak lu koy niru mi ngi ci téere boobu ay boroom xam-xam ñoo ko ñoo ko ñoo ko seede wane ni téere bu am solo la te boroom xam-xam yooyu ñu ñëpp xam la ci Sénégal ku mel ni El Hadj Momar Samb ak ku mel ni Papa Amadou Guèye ak ku ñuy wax Modou Sougou te ñu nekkoon INEAD waaye li nga xam ni moo ci moo ci doy waar mooy téere yi lee donte am nañu solo ay njiitu réew bind xëtu xëtu nuyoo bi maanaam préface bi ci njàngale mi kenn xamu ko kenn joxu ko élèves yi wax naa ci dox ci ci ñi nga xam ni ñoo jiite njàng mi xamal leen ni kii livre livre bu am solo la ndax ndox dara ëpp ko solo ci ci àdduna bi dara ëpp ko solo ci doomu aadama wax naa ni euh, boo jàngee alxuraan di nga gis foo xam ne sunu borom ma ngi naan wa jaal naa minal maayi kulla cheyin hayin nee na euh, lépp loo xam ne lii mi ngi dund ci ndox la ko def kon ndox dafa am solo dañ ko war a xam dañu ko war a war a wormaal bañ ko di di di di foye Ah, ca Ziguinchor ndox moom mais daanaka ay barab yu bëri ci askan wa ngir ñu jot ko ah, dafay metti lool rawatina ñu dëkk nag ca Ile ba fare nag ca région boobule ah, ñaamun ca la bokk Vandaay ba dëkk boobu ñuy wax joge ak yeneen ci askan yi nga xam ne ndox mi daal laata ñu ciy yet lu ne lañ ciy daj Ziguinchor benn Michel Kanfoudi ndox mu sell nekk na lu jafe ci askan wi yeewoo ca yi nekk ci diwaanu Ziguinchor ci ñoomun nekk ci département bu Bignona askan wu dafay méttee métti sax ngir mën a am ndox mu neex bu ñu sukkandikoo ci Saloum Dieng di habitant ci dëkk boobilee ndoxu taw bi la te village yëpp see root ak ak yi nga xam ne dañuy camper aux alentours de gaaw a jeex ci ndoxu taw bi ngeen di denc waaw ndoxu taw bi moom la gaa yi denc su commencé taw nii dañuy dajale def ndox bi si bidon yi uh-huh. moom la naan ba nawet bi ñëwaat ah. léegi citerne yi su bidon yi jeexee si kër yi ñoo ko dem si si si amul vide na amatul ndox ndox bu neex boobu mën na wax ne amatul parce que citerne amatul ndox même au niveau si école yi pour ñu effacer tableau yi sax xale yi ñooy mujj obligé indi ndox seen kër beneen île itam di jóge nekk ci embouchure fleuve Casamance foofu itam am ndox mu sell mi nekk na itam lu metti bu ñu sukkandikoo ci kàddu Cheikh jata nekk enseignant en service ci jóge on a euh, l'eau est comme on dit l'eau est source de vie mais ici vraiment on a un problème vraiment délicat. benn citerne moo am ci dëkk bi dañuy mujj sax di dem ci citerne boobu di ko jënd di jënd bidon 20 litre bi 200 la nga fay 100 francs pour ñu mën la ko andil ñeneen ñi dañuy yónnee ci gaal yi Elinkine ngir mën a wut foofu ndox en tout cas daal jafe-jafe boobu métti na torop trois citernes mais les deux autres citernes ne fonctionnent plus ne sont jafe-jafe ndox moom mi dafa gën a tar sax ca Ilu Baline benn il bu Banjal bi nekk ci département bu Oussouya. yeneen île yu kaasa mel ni ki Karabane Venday Sifoka et ci jafe-jafe yi ni mel la ñu nekk ngir wàññi guutagoo gi nga xamante ni ci moom la insulaires yi nekkee ndax ñàkkum ndox nguuru Sénégal tàmbali na benn programme d'approvisionnement ndox ci île yooyu lee ay château d'eau yi tamit sax tàmbali nañu jóg ci Diembéring Molombe ak Kafountine ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Euh, benn ñu dem Saint-Louis foofu Sen'Eau ñu ngi daal di nag def seen situation liggéey ne ñu fukk ak ñetti ci ay million de mètres cubes ndox daanaka jébbal nañ ko rek euh, askan wa société bi wax na itam ne euh, teg na lu war a toll ci ñaar fukk ak benn ci ay junni mètre daal di nag xëcc ndox mi ba ci réseau bi gën rek yaatu direct régional bu Sen'Eau bu Saint-Louis nee na am na yeneen projet bokk na ci tabax ab usine traitement boo xam ne ñaar fukk ak ñaar ci ay junni metre cube bés bu yàlla sàkk dina ko daal di eh, génne waaye itam ab château d'eau bu war a amee fanweer ak ñaar bu war a amee eh, ñetti junni ak ñaari téeméer ci mètre cube eh, foofa ca Sànnaar lañ koy daal di nag samp Saint-Louis Yves Tendeng ginnaaw bi mu dooree liggéey ci weeru janvier bu atum 2020 kuréel bii di Sen'Eau daanaka bëri na li mu jot a réalisé fii ci Ndar ci lëkkaloo kuréel bii di SONES muy ay jéego yi nga xame ni daanaka mébét li moo di rek fexe ba ñii nga xam ne ni ñooy askan wi ñu mën a jot ci ndox mi ci anam yu mucc ayib kii di Papa du Mbaye mooy njiitu seen o fii ci Ndar. waaw fii ci Saint-Louis. ci wàllu defar ndox ak di ko séddale defar nañ ci lu toll ci fukk ak ñetti millions. ci ay mètre cube yoo xamante ni nii séddale nañ ko ci biir gox yeeg goxaat yi yemuñu foofu defar nañ ci lu toll ci juróomi junni branchement yoo xamante ni ay branchement yu ñu def la ci biir këru nit ñi def nañ également lu toll ci ñaar fukki junni ak lu topp ci conduite yoo xamante ni yu ñu tëral la pour que ndox mi gën a dem ci gox yeeg goxaat yi loolu tamit boole nañ ci di renouveler ay réseau yoo xamante ne ni yu màgget la woon. kuréel bi itam jot na dooleel réseau bi ci wàllum dox ci gox-goxaan yu bëri fii ci Ndar. fexe ba nga xam ne nit ñi yenn jafe-jafe yi daan am dañ ko gën a wàññi ci noonu la leen duggee ci ay quartiers yu mel ni Bango ay quartiers yu mel ni HLM. boo jëlee cité Prytanée nga jël camp militaire de Bango ba ci boo demee ba université Gaston Berger foofu yëpp dugg nañ fa ngir mën a def ce qu'on appelle de renforcement de réseau. tey jii bokk na ci seen i mébét moo di fexe ba tëral ay projet yu mag fii ci ndaar ndax ci lu dul yàgg dara dinañ démarrer liggéey bi nga xamante ne ni moom moo war a def benn usine bu bees fii ci Saint-Louis di war a produire lu toll ci douze mille mètres par jour donc dinañ tabax beneen château d'eau boo xamante ne nii bu trois mille deux cent mètres la ñu war koo def fële ci wetu Sànnaar donc boo demee ci gox bu mel ni Dagana ñu ngi fay waajal teg benn usine bu bees boo xamante ne nii bu cent mètres cubes lay nekk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 Sud FM. ci nag bés boobu sax ñu leen wàllu nag euh, ndox mi Sénégal di waajal euh, beneen bés àdduna wërngal këpp nga xam ne dañuy màggal ndox moomu ñaar fukki fan ak ñaar euh, ci weeru nag mars Sénégal nag di waajal forum mondial de l'eau 2022 lañ koy daal nag amal secrétaire exécutif bu neuvième forum mondial bi di dellu siwaat ci situation bi Abdoulaye Sène lay wuyoo ci jokkoom ak El Hadji Malick Ndiaye. mën naa wax ne ci ndigal yi kilifa yi waajtaay forom bi avancé woon nañ ci bu baax a baax mbas mi ak pandemi bi ñëw na indi ñu ay jafe-jafeñ waaye terewul ñun ñu def ay pexe ba li ñu waroon a liggéey ci ay réunion yoo xam ne nit ñi koy teewee ñu def plateforme numérique digitale bu tax ci wàllu internet ñu mën a boole ñi waroon a bokk ci waajtaay bi yépp ci ay waxtaan yoo xam ne ay visioconférence lañ ko daan def ba mën nañoo wax ne li ëpp solo tey ci li ñu war a waxtaanee ci forum bi continuité thématique bi li ci ëpp solo yëpp defar nañ ko defar nañ ko te ci altine ji danañ ko won àddina si déglu leen ci ñoom lañ xalaat ne war nañ ko caa mën yokk mba defaraat ñu def consultation bu yaatoo yaatu ci semaine yii di dikk nag ñu boole lépp loolu tënk ko mën ne lii mooy li nga xam ne moo war a nekk session yi sujet yi yi ñu war a organiser kon nag mën nañoo wax ne waajtaay bi avancé na waaye nag li jëm ci mobilisation acteurs itam avancé nañ ci bu baax a baax def nañ ay protocole yu ñu signé ak ay institutions ak ay acteurs fii ci Sénégal ci Afrique ak àddina si pour ñëpp ñu mën leen boole ci mbir mi am nañu programme pour jeunes yi am nañu programme bu ñu tuddee mille jeunes jàmbaar pour l'eau loolu yëpp pour mën a impliquer dugal ñëpp ku nekk gis ci sa bopp waaye ku nekk itam am ay résultats yoo xam ne da ko mën a euh, jëriñoo ci forum bi kon nag yaakaar bi ñu am moom mooy tey euh, report bi may ñu nañu temps ñu yokk suñuy ambition maanaam séentu lu gën a ëpp njëriñ ci forom bi te ñu ngi ci lañu ñu jàng itam ci mbas mi di itam solo bu ñu war a gën a jox ndox pour wërgu yaram pour koom-koom pour activités yi dinañ ko gën a dugalaat ci biir forom bi acteurs yi gën cee xalaat pour forum bi nekk une meilleure réussite Eh, wàllu ndox mi ñu daal di wax ci ceer sellte gi eh, waaye itam mucc ay bi eh, gis nañ ne ndox lu mënul ñàkk ci dund doomu aadama bi ndax ñàkk ko jëfandikoo lu war a toll ci juróomi fan mën na tax nit ki daal di faatu waaye itam am na yeneen jeexital yu bon yu ci mel ni wàllu constipation nit ki di seere waaye itam jafe-jafe roño ba ci sax wàllu hypertension nit ki mën na koo amee jëm ba ci sax gaaw màgget moo tax ñuy digle ngir wérgu yaramu doomu aadama bi naan liitar ak génn wàll ci ndox bés bu yàlla sàkk di digle docteur Fat Bintou Cheikh Seck euh, nekk jiite ci seen nutritionniste ñu déglu ko Marie Rosalie ndox dafa nekk loo xamante ne mënuñu koo bañ a naan pour dund maanaam euh, bu fekkoon nit ki naanul ndox du tout ci diiru juróomi fan wala juróomi fan wala lu ko gën a néew sax de dina génn àdduna donc ndox lu am solo la si suñu yaram ni muy doxee ndox daf ci am solo parce que euh, réaction chimique yépp yi am ci yaram bi euh, soxla nañu ndox bépp saleté bu nekk suñu yaram ñu mën ko génnee ñi wax déchets métaboliques et puis ñu xam ne aussi ndox euh, ci lii tax ba suñu température maanaam suñu euh, suñu yaram ni muy tàngee ni mu seddee ndox mi moom moo koy réguler moom mooy euh, moom moo koy régler nit ki ci bés bi dina perte lu mat ñaari litre ndox ak genn wàll alors ñi nga xamante ne ñu naan ndox mu doy wala dañu ñàkk ndox am na jeexital yu ñuy gis euh, ci tàng-tàng bi maanaam dañuy yëg ni dañoo sonn dinañu yëg ni seen euh, xol bi ni muy euh, battre dafay dafay gaaw maanaam li ñuy wax tachycardie yi nañu yëg dañ dañu ay niir loolu yëpp ñàkk ndox def koy indi waaye bu ñuy xalaat jeexital yi nga xamante ne moom la gis plus tard mooy euh, dina indi seere ñàkk ndox boobu yeneen ak yeneen trouble digestif mën na indi aussi ay calculédo maanaam ay xeer yu nekk ci euh, ci roño bi nga xam ne mën na boucher roño bi mën na indi euh, vraiment conséquences yu grave dina aussi contribuer ci ñàkk ndox moomu ci hypertension mais aussi loo xamante ne surtout mag yi dañ koy jàmbat lu bari mooy douleur articulaire méttitu oom ak méttitu méttitu diggu gannaaw ak yooyu yëpp ñàkk ndox daf koy indi dina indi également Euh, li ñuy wax euh, am yaram prise de poids ak euh, vieillissement prématuré maanaam nga xamante ne dafay gaaw a ras donc ñi nga xam ni ñuy déglu bëgguñoo gaaw a ras bëgguñoo gaaw a màgget nañ jàpp ni il faut que ñuy naan ndox te liñ ci tegtal mooy di naan lu ci gën a néew litre genn walla ci bës bi te ci ñenn kaay daf ko war a ëpp sax d'ailleurs waaw ah, ñu daal di tàbbi ci jotaay wax sa xalaat ñu jig woon ci ponk climat apaisement bi ñuy woote boobu ba léegi yemook nag ak ñenn ñu ñu téye ci wàllu yoon ba léegi discours euh, tontante diggante nag ku jéggi ak ñi fare ci nguur gi ndax li di mel euh, mën na yombal rek apaisement bi ponk la ci beneen bi mooy situation euh, ndox mi àdduna wërngal këpp nañ ko jàngatee ak wàllu mbas mi ba tey wàllante gi matuwaay ñu mujjee nag jël ak na ko askan wi di dunde ñu jël ko jiitu ci 98 98 biir réew mi bitim réew 33 841 22 33 Pape Lay ñu dalal ko jiitu allo salaamaaleykum. Adama. waa Adama na nga def. waaw maa ngi fi. Maam Mor de Patte d'Oie la maa ngi lay siyaare bu baax. Maam Mor waa ñu ngi lay delloo ziar waa. di siyaare bu baax sama ñetti oustaz fu dee ñaan gudd fan ak xew la ay ndam yi yàlla na ko yàlla defal. waaw sañ continuer ñaan ci mbas mi ndax jógeegu fi. Mm. ah malgré mi ngi wàññi ko nag mais mi ngi ci réew mi te wàññi koon ba def ñetti nit sax si jeexu tàkkit mën nañoo wàllante at ba mu gën a yokk kon loolu nañ ñaan yàlla mu jëlee ko fi di julli ci yonente bi di jàng alxuraan di sàkk ay sarax lu ci am solo la comme ni ko kilifa yi diglee ndax suñu borom gën ko fi woon la gannaaw mu jóge foofu faaw kenn ku ne mën a dellu si activité ñu nga xam ne jàpp nañ leen ñee toog fee di sànni xeer naan nekkuñu ci yoon dafa leen di war a bàyyi wala nangam loolu du woyefal seen mbir mm-hmm. parce que nit bu nekkee ci giréen wali bañ na ko nuus buur tëye ko daa la ko fay jële du nit ñi nekk ci biti di wax di continuer di wax loo xam ne si du nakk su noonu la xam nga leen bu fekkente ne bëgg nañ jàmm daal bëgg ñu bàyyi leen nañ bàyyi ak yoon rek mu def liggéeyam bu bu ñu leen waree libéré ñu libéré li mais dégâts yu rëy yi nga xam ne def nañ ko ci dëkk vraiment yenn mbir yi waree su la ko woyee fale noonu waaw ndax yenn slogan yi moom képp ko ko war ci bëgg ay France dégage France nangam mais France nañ ko dégagé lu ma trois millions sénégalais ma nga ci France di fa ñooñu bu leen tey ji ñëw Sénégal fu fanaan nit ki booy wax li nga wax da ko war a xam adduna bi moo weesu léegi yooyu adduna bi ay weccante la ay demante ay dikkante ci jàmm ak salaam hmm. kenn ku ne loo mën a defal sa morom nga defal ko France ñun yokkaluñu dara defuñu dara magasin yi ñu fi ubbi suñu magasin la nooy jóobu jël suñu marché di ko fi yóbbu di ko fa jaay ay sénégalais ci liggéey noo koy jariñoo hmm. koor gi ñëw jàmm bu ma saa ñëw saa boo dem day feet del nit ñi dafa jënd lañu fa bëgg a jënd hmm. nga wax ay nit di dugal ci bopp ay nit bañ lakk ko mais loolu ko def dañu laa war a teg kaso kenn parce que bu ñu la baalee boo liggéey da nga wax leneen lu gën a garaaw loolu ci réew mi adduna bi dañuy sansente di dem ak a dikkante mais yow amoo mbokk France mosoo dem France liggéeyoo fa xamoo fa dara France ñaata million ngi nit Sénégal ñoo fa de di fa daan seen doole ñenn ñi dëkk fa ah bu ñëw ngeen newoon ñoom bu ñu newoon Afrique dégage Afrique dana am problème nañ bàyyi wax yooyu tey wax lu rafet di def lu rafet réew mi nag loolu ci naqare mën nga ko wax ci biir réew mi président bi liggéey yu lag nangam nangam yooyu bu la neexee wax ko amul problème ci démocratie la nekk démocratie wax lu bon lox lu baax la ak wax lu jëmal réew mi kanam mais nit ñi dañoo war a seetaat la ñuy wax bu baax ñii fi nekk ay jàmbaar ay gor lañ nit ñu baax lañ lëggéey dañu fi lëggéey bu mucc ayib bu ñu fa waree jóge daañu fi jóge waaye kenn mënu leen fa jële seen seen biiru ba fa jóge jot kon jërul wax lu ñaaw jërul saalit jërul ñàkk tegin loolu du jële kenn fenn ku def lu bon dañ la tëj merci ok ñu daal di xaar keneen ci ligne bi biir réew mi wala bitim réew ñu daal di koy déglu ci ponk yooyu ci wax sa xalaat 88 628 allo yaa ngi ñu ngi ci allo waaw. allo. allo waaw. salaam maar boo wootee del teewlu waay. Ah? boo wootee del teewlu. waaw ah, maa ngi teewlu de dama doon wax ak suma. waaw loolu la ñuy bañ loolu la ñuy bañ. ok. ok jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Laye. waaw waa Sénégal yëpp. Mhm. xam nga jàmm bu ñu ko wootee ci réew. waaw ba ñëpp ànd ci. kon ki nga xamante ne moo doon wootalu jàmm muy Macky Sall dafa war a ànd ak sénégalais ci jàmm. dama ni ñoom mu jàppoon tëj leen ci kaso bi ñoom Assane Diouf ak ñoom Clédor Sène ak ñu mënti doon na génne ñëpp bàyyi leen ñu nekk seen liberté. parce que moom mi ngi nekk ci liberté am ay doomam nekk ci seeni liberté sénégalais yi nekk seen jàmm lay woote na bàyyi ñëpp ñu génn bu fekkee mënu ko ñun danañ solaat suñu mbubb yoo nga xamante ne. nañ ko doon attaqué lañ koy attaqué parce que Sénégal réew démocratie la néew réewu jàmm la kilifa diine yi wax nañu kilifa aada yi wax nañu chrétiens yi wax nañu ñëpp wax nañu kan Macky Sall na bàyyi nit ñi ñu génn dem liggéeyi parce que dañoo war a joxe dépense war a fay luyaas war a tukki war a lekk war a naan jàpp ay nit nag tëj leen ci ay kaso ak kaso ni mu méttee te defuñu dara loolu moo war a jeex Sénégal population bi liñ ko wanoon fan bi mu téye Ousmane Sonko lu raw lool nit ñi boo mooy danañ ko ko wanaat bu bàyyiwul nit ñi ñu génn ay jafe-jafe rek la koy dikkal te mu dem lijjanti xaalis indi ko ci réew bi koor gaa ngi ñëw mu dimbali nit ñi ci xaalis nit ñi mën a jënd suukar mën a jënd tàndarama mën a préparer koor gi su ko defee seen koor neex nit ñi mën a yor xaalis seen poche comme ni ko gouvernement Amérique di defee ñëpp la ñu defar seen affaire tout ñun ñëpp a kontaan barki rasulillahi maa ngi lay nuyu di nuyu soose naan la wan loolu man américain forever Euh, ñu daal di xaar keneen ci ligne bi jël ko Pape Laye bitim réew 33 841 euh, beneen auditeur allo. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa. fi. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Mbambilor fayal rajo bi sëñ bi. man de dama bëggoon a participer tuuti rek ñi nga xamante ne dañuy woote ay parce man noonu laa ko gisee. Hmm. dañoo woote avec euh, euh, apaisement vraiment euh, benn nit wala ñaari nit waruñ amee rajo bi rek ci xam di xamaat loolu baaxul. nit ñi kay wax nañ dañ leen di war a bàyyi dañ leen war kii ngay bëgg a expliquer loo xam ne nii def ko fi jarul franchement parler. jàmm la ñuy woote da nga war a wax ak jàmm waaye ñaari nit kenn ki xombal kenn ki fàdduwaay chaque jour ci rajo bi te duñu wax jàmm loolu tamit dafa rafetul quoi vraiment dañu am woote apaisement moo gën defe naa sondage bi ñu ko defoon ak li xew barkaat yi dem bu semaine passée <laughs> bu ñu basé ci ñaari xam ne sondage boobu c'est c'est tout à fait négatif loolu rek laa bëggoon a wax. Mhm. d'accord jërëjëf. ok euh, ñu di loolu mooy jàngatam sëñ bi ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko Pape Laye ñu wéy ci jotaay wax sa xalaat. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. waaw man la Madior di wootee depuis Thiès. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw thème bi am na solo trop si mbas mi nag laa bëgg wax comme instant yi levé nañu mesure barrière yi hmm. man li may li may ñaan nit ñi mooy ñu ñu xam ne feebar baa ngi fi ñu jéem a respecté mesure yi takk seen masque. respecté respecté même distanciation yi su fekkee mënul nekk ak ak conditions yi conditions yi ak proximité yi au moins ñu fexe ba nga xam ne nii daal euh, ñu fexe ba xam ne ni daal nit ñi nañ respecté nañ takk seen i mag fexe respecté mesure barrière parce que surtout surtout mag ñi ñu sóoraale leen ci biir kër yi xam nga fexe nit ku ñu ko commencé woon continuer di teg ndox mi foofu ci bunt kër gi fexe xale yi takk masque yi di ñëw nag euh, ci deuxième point bi xam nga mooy premier parce que je pense ak ma ci apaisement la ñu nekk te je sais je sais que ak nit ñi leen métti yi génne nañ ko pare dans la rue donc actuellement nii kon ñëpp xam nañ ne ay arrangé wul kenn li may ñaan nit ñi mooy ñu wax wax ju rafet xam nga continuer dans dans dans la dans la l'apaisement ñëpp waxtaan xam nga euh, euh, pouvoir bi fexe lu mu convaincre population yi ñu bàyyi ko fa opposition bi nekk dans son lépp nekk ci ci njëkk ak teranga ak sans violence ñëpp woote à l'apaisement bàyyi parce que mënoo parce que mënoo nekk ci biti néo Sénégal di di di woote di woote euh, résistance alors que ñun ñu ne fii surtout ñu ne fii Sénégal bëgg jàmm yow comme da nga dem préféré nga nekk à l'extérieur mais yow nga wax jàmm nga wax nga wax nga wax jàmm c'est parce que ñun ñu nekk fii boo lu am lu metti amee ñun ñoo ko ñun ñoo ko yëg ñun ñoo koy sentir ak suñu njaboot am nga entre entre politiciens yi ak société bi ak ñi nga xam ne doon ci leen la moo tax apaisement bi ñëpp arrange ñi ñaan daal ñëpp ñu woote ci apaisement. Hmm. merci jërëjëf ok euh, jaajëfal ko mbokk moom la itam euh, Pape Laye keneen la ñuy jël ci ligne bi jotaay wax sa xalaat 88 628 98 98 ponk yi bokk na ci wàllu apaisement yi ak li ñu nemmeeku ci penc mi ndax mën na ko yombal wàllu Covid bi allo. soxna yey fanaan. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi. waaw Oustaz Adama. waaw. maa ngi lay ziar. ñu lay delloo ziar fayal rajo bi. waaw waaw d'accord. yow la ñuy déglu. naka yi tey. sant yàlla bu baax. man Oustaz Adama xam lan laa bëgg laaj. mooy. Euh, dama yaakaar ne Sénégal Sénégal am na ñoo xam ne bëgguñ jàmm. Hmm. ndax te ñu bëggul jàmm. Mhm. Euh, ñu bëggul jàmm nag dama yaakaar na ñoom dañuy dañuy wax lu leer parce que jàmm da ngay wax lu leer. Mhm. man xam nga mos naa la fi wax ne man ma. ah. mos naa la fi wax ma maa def woon ne man politique ma yow laay déglu. yaa ngi dégg. waaw ma politique war yow laay déglu yow yow Oustaz Adama. waaw léegi nag euh, loolu noonu am na ñu am na ñu ma dégg ñu wat rajo di wax di wax naan euh, ku wax naan Oustaz kii de Sinaat laay déglu. da ngay da ngay far. waaw loolu seen loolu seen xalaat la waaw bon xam nga lan moo bon. Hmm. faral nit ci lu dëgg moo bon xam man ñan laa faral. Hmm. ah. waaw. man damaa ñu may déglu gis nga boo ma bañ laa tuddal ay rajo. Moustapha hmm. Diop Bol Fadjri moom laay déglu. Ah, ah, ah Oustaz Adama laay déglu. daa nga dégg ndax li ma dox. maa ngi lay dégg waaw. Ngañ Ndiaye la am ci déglukaay. waaw mu dégg nga li ma dox. Mm-hmm. loo loolu kon nag am nañu faral am ñu faral am ñu faral Macky Sall am ñu faral keneen am naa droit faral ñu faral man tam wala amu ci droit waaw ñooñu seen xalaat rek la ñuy léegi nag man xam nga lu may faral di wax. Mhm. ñii saaga ñii saaga laa ne saaga ku mu mën a doon saaga jaarut. Mhm. ndax dama ne ma Sall jëru ngay saaga nit Oustaz Ousmane Sonko jëru ngay saaga nit. Mhm. li yaa ngi may dégg. waaw bi si biir jógoon ñoom ñëpp laa ko si man ne man ma ànd nag yow mii bu ma àndee yow de bu ma man gëm-gëm boobu laa am. waaw tey su ma dégg Ousmane Adama nga Sandaga ñu koy tànni xeer. xam nga waaye maa ngi ci mbooloo man gëm-gëm boobu laa am. waaw man gëm-gëm bi ma am nag am na ñoo xam amuñu ko man ñaanu Macky Sall bu Macky Sall di wàcc xare bi dañu waaj a wàcc xare bi dañ ko war a def. Hmm. waaw euh, foofu na dëgg jaajëfal ko dañu euh, itam ku ci nekk rek ñu may ko li mu xalaat mu wax ko ñu jàppee ko ne rek euh, xalaatam bu ko defee rek jàmm dina dina am Pape Laye keneen ñu jël ko allo waaw. allo salaam waaw. waaw ah, Adama Ndione maa ngi lay nuyu nuyu ñi nga bokkal liggéey bi. ñu ngi lay ñëpp dal ñu ngi lay fay wax. yéen ñëpp jàmm di ñaan la man jàmm man la Momadou Mador. waaw mhm. ah, Adama. waaw. waaw man daal li xam dama ko ci wax mooy démocratie dafa am kenn ku ne war na mën a am liberté. Sénégal moom dëkku jàmm na dëkku la waaye li ci gën a am solo bu am solo mooy mooy développement yenente jàmm kenn ku nekk nekk ci dëgg. dana mujj ki loo ko bëgg bëgg bëgg nangul wax dëgg loo ko bañ bañ bañ nangul wax dëgg ndax bu wax waxantee dëgg rek am na Sénégal jàmm mu ngi ci bu ñu waxantee li nga xam ne mooy dëgg xam ne président Macky Sall euh, wax dëgg yàlla jàmm jàmm rek moo nekk ci moom te jàmm rek lay woote jàmm lay dox moom lay wax kenn musul dégg lim ma wax wala lim ma def dañ war nekk dañ war roy ci moom lu bare bare bari ndax Sénégal am na fu nga xamante ni président Macky Sall yóbbu na ko fa muy njariñ Sénégalais yi waaye nag euh, bu fekkee dafa am ñu nga xamante ni seen mbir yëpp dañ ko seen wax yëpp politique ak critique suba ba ngoon li naan fukki nit di gas fukki nit di suul pënd bu mooy bëri rek mais li lii l'essentiel bi mooy nañu nangu di di wax jàmm nangu euh, di li nga xamante ni mooy sunu réew lu ñëpp bokk na lu nekk ne mu ngi ci biir yàlla sunu borom moo moo ñu bind moo ñu boolee te lenn rek lan moo tax yàlla wàccee ñu fi ci kaw suuf mooy jaamu yàlla sëñ Saalum Mbacke daan wax naan ah, li ñuy li ñuy fekk sa bàyyi muy jaamu nañ delloo ci yàlla mbir yi yàlla moo yor lépp. bu ñuy delloo ci yàlla ci mbir yi mais topp ñi nga xamante ne gëmuñu yàlla gëmuñu seen àdduna yëpp mbirum politique la jàmm daal man loolu laa loolu wootee jàmm lay wax ndax président Macky Sall ku xam-xam ko ci jàmm lay woot jàmm la bëgg Sénégal mi ngi avancé mais yeneen yi nga xam dañ ko ci wax ku ñuy képp koo xam da nga jalgati nag loo xam du yoon dañuy war a ci yoon at la ci yoon loolu mooy dëkk waaw même fekkee ne nag dañ dafa deful def na ko su noonu ñu dañ dañ ko war a yóbbu ci yoon wax loolu loolu loolu du yoon hmm. ah, yoon bi moom yoon kii moom yoon moo fi am Ousmane Sonko ku mu mënti doon dañ koy àtte àtte rek dëgg rek moo fi am ndax justice moom ni muy doxee yoon la ndax ministre de la justice président Macky Sall moo ko fa teg te ngi def liggéey ni mu waree avocats yi ñu ngi def seen liggéey mu waree ah, ah, mu nga ak Pape kon yéemale ko fi waxtu wi dab nañu ah, dinañ ci dellu si waat gën koo yaatal xibaaru guddi gi jéggalu ci ñuy desoon ci ligne bi jaajëfal ñu woote Sud Nutrition lañ koy toftal laata 18h ak Adja Xabsa Ilimaan waar na xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab ñu ngi jaajëfal bu baax a baax Papa Abdoulaye Dieye mi na àndaloon ci sottandikukaay bi mucc bi tey jàmm biir gudd fan la am ak mën yàlla ñu ko yàlla